asalaamaaleykum alaikum, nous sommes ñun euh, les jeunes de Guédiawaye je m'engage bu sommes je m'engage nag euh, originellement les supporters de Guédiawaye football club Sans ci introduction mag on aurait dû inviter toutes les ASC de Guédiawaye mais nous nous considérons comme étant les ASC de Guédiawaye parce que nous sommes tous fii ñëpp ku nekk fa mu jóge ak man mi président ASC la am président ASC yu nek suñu biir ñi président de supporter ñi membre de comité directeur ak yenen ak yenen donc euh, mu nek ben association bo xamantene ne ne euh, mën wax ne ne suba lañuy créer euh, assemblée générale constitutive bi mais terewul amna ay at ba légui ñu ngi doon yëngu dans l'informel, informel di yëngu ci social culture ak environnement motax bi ngeen ñu wowe ci lu melni ñun ñu sawar ci lool en en résumé Guédiawaye je m'engage

luy jëmbat lii te ñu jàpp ne ne géejawaay nu mu tuddati hôpital dalal jàmm pour géejawaay la donc ñun ñoo ko war a sàmm dañoo war a jàpp ne ne ñun suñu hôpital la c'est pas normal ay nit di jële ay kilomètres kilomètres di daw di wuti ji ay Fann wala ay Dantec wala ay Principal ñu war a xeex ba nga xamante ne spécialité yi am ci hôpital yëpp daf fi am ba nga xamante ne am na ay urgence yoo xamante ne du la may nga daw fii ba ay hôpital yooyu fekk na hôpital à cinq minutes nga egg le membre du personnel de Guédiawaye parce que nous de de mais ça c'est une action citoyenne Nous avons population peut exemple parce que c'est rare ay nit ñoo ay citoyenneté di un salaire après donc ça également c'est une très belle action nous avons leen ñu engagement je m'engage lépp loo xamante ne rek war nañ leen ci mën a taxaw fii ci biir hôpital bi jàpp leen ne ne am ngeen partenaire dynamique boo xamante ne ne am nañ suñuy méthode sunu organisation boo xamante ne ne ci lu ñu war a mën rek jàppale dinañ leen si jàppale incha allah. ñu ngi leen di gërëm di leen sant euh, di leen remercier ci seen teewaay fii.

alors ñu gis également taxawaayu association Guédiawaye de m'engage gis également sen farlu gis également sen organisation gis sen professionnalisme biñ ko gisee nag ñu ne ah lii kat wax dëgg yàlla ñii mun wax ne mooy dénominateur que moo Guédiawaye en tout cas ci wàllu sport parce que ci li ñu dégg pratiquement association yi fi nekk yëpp wala ASC yi fi nekk yëpp am nañ ci représentant comme mënuñu dem nag ci ASC bu nekk ñu jël dénominateur commun bi moi, association Guédiawaye je m'engage pour wax non seulement teewal leen ci mais tamit leen loxo qui lépp activité sociale ou activité citoyenne la ñu hôpital bi li tax organisation mais surtout un engagement pour la cause de aussi ligne ñu diis na diisaay boo xam ne benn mbagg rek mënu koo yenu képp ku wax ne yow say mbagg kese wala sa xam-xam kese wala sa doole kese wala sa koom kese mën na la may nga réussir sa mission yaa ngi juum nit loo mënti am loo mënti xam ak loo mënti mën soxla nga ndimbal soxla soxla nga ñu nekk say wet di la jàppale donc association bi ñun liñ ci gis mooy war nañu mën a am un partenariat gagnant gagnant ci lépp loo xam ne yéen ci le social, yëngu wala ñun ñu ngi ciy yëngu ci wàllu social ci wàllu citoyenneté ci wàllu environnement ci wàllu don de sang collecte de sang ci wàllu sax dimbali malade rek ci wàllu accueil hôpital mooy fi nga xam ne ala kulli alin nit da koy soxla te façon bu nekk dina ko soxla te yéen aussi mën ngeen association bi mën nañu taxawee façon bu ne ñun également naam ci wàllu faj bi la ñu gën a mais hôpital du faj kese donc am na ay pàcc yoo xam dinañ ci soxla loxo association bi donc euh, partenariat bi dinañ ko gën yaatal d'ailleurs euh, bi ngeen euh, bi association personnel bi tambalé di def loolu dama leen né ah contacter leen waa Guédiawaye je m'engage mais ma ko waxee man leen non man présence symbolique rek bu ñëwé baax mais président ci boppam moo ma non non non non directeur dinañu mobiliser on va venir en masse on va participer donc motax wax deug yàlla ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci seen ci seen ci seen teewaay di leen wax ni également ubbil nañ leen suñu loxo et d'ailleurs action sociale boobu nga xam ne yéen a ngi koy yéen a ngi ko doon def di ko wàcc chaque année euh, waxtaan naa ci également ak personnel bi dinañu xool ensemble naka lañu ñu organiser waatee lu mel noonu ci biir at bi pour que ñooñu nga xam ne seen yéen a ngi fexe euh, ñu dimbali leen personnel bi tamit xool naka lay taxawee loolu parce que loxoy kajoor la vraiment dafa war di weesaloo mu baña nek dans un sens seulement ci lolu mom moy tax suñu nekkin gëna neex lolu mom moy tax ngeen sentir sen bop ci bir hôpital bi ñun également ñu gëna sentir suñu bop ci bir géejawaay bu ko défé mu am une osmose ñun liggéeyal géejawaay liggéeyal Sénégal réew mi jëm kanam. waaw salaamaaleykum alaykum d'abord dañuy commencer si di leen jaajeufal ci sen téway comme niñ ñu leen ko waxé ñun yàgguñu fi ñu contacter leen rek.

mu doon cadre boo xam ni personnel bi si boppam dina si yëg boppam léegi nag amical bi lii commencement kese la li ñu yéene ak li ñu mbébét si suñu hôpital gunge suñu direction si li mu bëgg a def si hôpital bi non seulement ak bu ko jëmale si biti bëri na am na ay journée don de sang yi ñu bëgg a organiser am na ay journée de randonnée yu ñu bëgg a organiser bëgg nañu tamit bés ñu wàcc waxtaan ak suñu mbokk yi nga xam ni ñoom ñooy suñu patients yi balaa ñuy egsi fii ay journée de sensibilisation am nañu tam ay action sociale yoo xam ni bëgg nañ ko si képp ku dugg si hôpital bi am problème jafe-jafe yi pour faju ñu taxaw si donc gis nañu ni ngeen ñu taxawoo wax dëgg yàlla kontaan nañ ci te ni ko suñu directeur waxee partenaire gagnant gagnant la nar a nekk xam leen ni ni ngeen taxawee nii suñu wet ñu nit pare nañu pour taxawoo noonu seen wet ba lépp lu ngeen sumb rek incha allah ñu ñu jàpp si ba mu ba mu mat soobee yàlla merci